naataal fukk ak juróom Jésus wane na dooleem ci kiraama yu rëy ak yu bari daan na xolloo gumba daan na dekkal nit ñu dee daan na dox ci kaw ndox def na kiraama yu bari ngir wan nit ñi ab yonent la te am na ndigalu yàlla lu mu mës a wax mu am Jésus kenn la woon te ñu bari xamoon nañu